asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taaliba yi mbokki ñu topp ci biiram ak ci bitim réew na ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci jumaay Touba fii nga xamante ne bi mooy kër Serigne Touba Cheikhul Khadim fii nga xamante ne bi tey xam ngeen ne fi lañ am ndigal di fi indi ndog yi saa su nekk di ko di fi fekk jàmbaar ji di Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ne tey mooy benn fan bu njëkk ci weeru koor waaye liggéey bu tedd bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall ku tedd ki Cheikhul Khadim moo santoon ca njaareem mooy togg ay yóbbu ko yóbbul ko ko indil ko ko ci njaareem mu wéyandikoo wéyandikoo ndigal loolu wéy wéye ndigal loolu ba nga xamante ne bii sa borom dogal na euh, jóge na fi euh, ci ay at yu bëri nag yu mu ko toog ci njaareem Cheikh Modou Safal njëkk ko wuutu euh, liggéey ko waaye ba mu fi jógee itam sëñ Mor Talla Fall moom itam liggéey liggéey bu tedd boobu jóge fi sëñ Ablaye Fall Ndar moom itam wuutu ko fi liggéey liggéey bu tedd boobu waaye sëñ Ablaye jóge fi itam Serif Assane Fall moom itam wéyal ndigal loolu ba mu fi jógee sëñ moom itam Euh, wéye ndigal loolu ba yegsi ci Serigne Modou Aminta Fall moom tam mu togg ko ba tey ji Serigne Cheikh Jëmm mu nekk ci loxoom ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg ci loxoom xam ngeen ndigal loolu bi ñu yegsee nag euh, ci ren muy 2020 xam ngeen ne tombeek euh, li nga xam ne ñu ngi koy dégg ci àdduna sëpp te mooy feebar bi nga xam ne tax na ba ndog yu toggin yu soppeeku soppeeku gi mooy nañ leen ko waxee woon mooy ni ko sëriñ bi bëggee Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir rek ñu wàññi mbooloo mi ak ndaje yi tey li nga xamante ni bii tam moom la maam Cheikh Ibrahima Fall baaxoo a defal ku tedd ki eh, sëriñ Touba Cheikhul Khadim te mooy toggal ko ndab yi waa xam ngeen ne ndab yooyu wéy nañ eh, jëfandikoo ndigal li ñu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe woon mooy nañ ko togg yóbbu ko waaye nañ wàññi nag li nga xamante ni mooy ndaje mi moo tax boo demee ko sëñ Cheikh jëmm tey ji xam ngeen ne kenn wax dëgg tamit kenn ku ci nekk yaa ngi ko togg sa kër waaye tamit ñu mënta ñàkk ci biir kër ga muy lim bu takku maanaam muy lim bu bu néew mu toll ak ñetti nit jàpp ñeenti nit ñooy ñi nga xamante ne bi ñoo ko togg ba yeggal kenn ki nekk tam ba nga toggee ba noppit dangaa ngaa indil sëriñ bi mooy ñaari nit mbaa ñett yana ko indi ko ñu àndandoo nag ñëw indi ko fii waaye mbooloo mi bëriwul ndax boo ñëwee xam nga ne daanaka ñu néew nga fiy fekk da nga buñ ne lee lii mooy première comité sax da ci yàlla ndax na nañ ko xamee woon ak tey ji ni mel waaye lépp rek jëfandikoo ndigal rek ko waral ndax ñëw nañ euh, fekk fi waa kër Cheikh Mouhamadou Mountakha tàmbale ko Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif mi nga xamante ni bii tey moom la Serigne bi teg ndox yi ci loxoom waaye Serigne Lamp Ndiaye ak murid yi ñoom itam ñu tertul euh, bi nga xam ne moo bàyyi ko ci Serigne Cheikh jëmm ka ko jiite muy Serigne Moustapha Fall Cheikh moom Serigne Cheikh Fall Khadiga yi ak Serigne ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom lay àndal ak murid yi nga xamante ni bii tam ñoom la Serigne bi tànn muy lim bu euh, ndaw rek lim bu gàtt boo xamante ne bi ñooy ñëw ngir fas yéene jëfandikoo ndigal loolu waaye na nga sant bu baax nag di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ngir mu dimbali ñu ba nga xamante ne bi lii dana ci mën a jaare tey ji ngir lépp loo xam ni tey moo doon yëngu ci àdduna sëpp ñu di ko dégg muy feebaram mu daal di fi dañ ba set wicc daal di jeex ci àdduna sëpp nag waaye jeex fépp ci àdduna si nag di ñaan sunu borom ci barkem dog yi de wax ne daal ndigal li daal jëfandikoo nañ ko ndax boo ñëwee ka sëñ Cheikh jëm la ko dalee kenn ku ne yaa ngi takk sa masque ngi so yor yaa ngi raxasoo saabu ko ni ko diggee waaye di dànnante itam ngir moytu dajaloo bi loolu mooy ndigal li nga xam jëfandikoo nañ ko ba li Serigne Touba bëgg ñu def ko te Baye Ibrahima Thiam waxoon na ne Cheikh Rafal ne lu suñ bam bëgg mën naa am kon ndigal Serigne bi mooy ñaar yi benn mooy ñu togg ndog yi nako ko Rafal daan defale sëñ Touba waaye ñaar mooy ñu waytu ñu moytandi ko dajaloo bi ak mbooloo mi waaye ñu mën di dànnante itam te lim bu néew indi ko ku ñëw fii tey gis mbooloo mi ni mu demee ñu ne benn fan nga xam xam la xewoon daaw ci benn fanu euh, koor tey jii ci benn fanu koor nga xam ne kon la Serigne Touba bëgg am na ko noo ngi ñaan yàlla mu yàgg te sax te ñaan yàlla feebar bi jaare fi lépp set wicc ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina bi Muhammad